seen beneen acte du jour ami internet yu 24 actu yi bàkk ba jibatina les nar a waxtaane tey du commité départemental de développement bu grand magal de Touba ginnaaw ab réunion buñ amaloon bañ ca noppee nag daal di nañuy janook taskatu xibaar yi ñu nangoo ci cadre di coordonnateur comité bi di Serigne Ousmane Mbacke Gaynde Fatma daal di nay wax ne kii di xalif général de Mourides Serigne Mountakha Bachir daal di nay joxe ndigal ñiy màggal si ñu fonk mesure barrière yi nga xamante ni que docteur ñoo ñu ko digal Serigne Ousmane Mbacke naka daal na si toftalaat ne dinañ defa lépp luñ mën ba population Touba ni mu waree ci période màggal gi ndigal loolu naka la Serigne Mountakha Bachir daal di joxe képp koo xamante ni rek ab taalibe nga wala màggal si nga daal di fonk li nga xamante ni nii moo di mesure barrière yi a euh, kër docteur digle ngir ñu xeex mbas mi lëmbe mbim réew euh, di Covid 19. Euh, ci mbas mi nag la ñuy daal di dese nii moom Covid 19 di mbas mi nga xamante ni moo lëmbee mim réew daal di duggaat ca mairie bu Ndakaaru secrétaire u maîtresse Soham Wardini yi moo nekkoon en contact ak benn membre famille am bu amee Covid 19 ba loolee waral kii du Soham Wardini ñu daal di koy ak quarantaine def na naka yi la test dañuy xaarani rek ba xam dana positif am am déet ndax mbas mi ni muy wàlle dafa jéggi dayo lool lépp loo xamante ni nii nag ruusani war na ci ci yooyu les résultats dinañ leen ko toppal daal leen koy digleel ci seen site d'internet bi di 24 actu ñu daal di wéyandi ba léegi ci benn xale bu góor bu ay atam toll si fukki at ak juróom-ñeent moom la yoon nag teg loxo ndiki aljuma ca xombal ñu ko jàpp nag di commissariat central de police bu Diourbel ñu jàpp ko ak 30 cornets de chèvre indien waa ji mu ngi wuyoo ci turu Modou mbay seen ñi ngi ko tegee loxo ca marché central Numbe Diop enquête ba nag ma ngay wéyandi ñu bàyyi loolee enquête ñu wéyandi ba tey ci naqar bu metti lañu nemmeeku naka ca diwaanu Bambey benn xale bu am lu toll si juróom-ñaari at moo daal di rey papam bi ko jur buñ sukkandikoo rek ci ëttu lee boobule di Seneweb xale bi def li ni mel naka dafa amee li nga xamante ni moo di wér di xel ci fàttali rek yëf yi ma nga amee ca ndàngal ma ñu bàyyi rek yoon def liggéeyam ba lépp lu si ruusaniwaat 24 actu dina leen ko toppal si seen yeneen jotaayu xibaar Fatoumata Bari ñu gën koo xam ci Rangou dafa bind benn demande ngir bëgguñu may ko li nga xamante ni moo di liberté provisoire mu sukkandikoo ci quotidien national bi di la Soleil si fàttali moom rangu waa division des investigations criminelles ñoo ko tegal loxo le 27 mai bi ñu génn ca hôtel Ngor Timis ci ab yendu parti bu mu organisé woon ci jamonoy mbas mi ñu tere lépp loo xamante ni daj yi ab dajaloo ñi ñu ko loon naka di gérant wu ngox Timis ak ñi bokkoon ci soirée bi ñoom ñëpp may nañ leen li nga xamante ni moo di liberté provisoire kii di rangu nag moo daal di des ñu xaarandi rek ba xam yi am déet lii rek moo fi ruusandi woon amee internet de 24 actu ak dig dajalay doon ba ëllëg ak jàmm